salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk yi bàyyi xel Mouslih TV Sénégal ñu leen di nuyu euh, di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi Sénégal amee ay goru yàlla ñoo xam ne fëkk yóbbuwu leen ñu mel ni Imam Kanté ak ñu nuro ak ñoom yow Thione yow lay waxal ragalal yàlla def lu bon ba pare di ko siiwal yàlla buggul loolu ci seen conférence de presse nee nga doo jàppale góor jigéen doo dimbali góor jigéen doo góor jigéen sa doom du góor jigéen d'accord soo fa yemoon ñu mun a wax mais nee nga góor jigéen bu la jox xaalisam nga lekk kon yaa ngi leen di jàppale te gëm naa ne noonu nga waxee ne góor jigéen bu la jox xaalis nga lekk sa doom bu ñu ko joxee t-shirt ne ko publicité ñu suñu góor jigéen jox ko xaalis mu lekk ndax doom ja baay ja coon li ngay wax ak li ngay jëf na dëppoo yow waxoon nga fi ne sa xaalis doo ko dugal ci boîte de mukk ma ne ah kii de jàmbaar la kii de xam na ne mi ngi ci caaxaan xam na ne mi ngi ci loo xam ne yàlla gërëmu ko mais bëggul dee ci waaye ba nga góorgóorloo def ay pexe ba am ku la jàppale nga dem ubbi pénc mi laa màndoo ci say mbir ma ne kii moom dóorkat la coon sekk dóorkat bu mag nga coon bi ma nekkee xale ba léegi yaa ngi woy te léegi màgget naa dama bëgg a dee ci kaw seen xanaa yor micro di woy di woy di ba xëy ne këlëb ci kaw seen ñu jël yóbbu naan taalibee diw la wala taalibee diw la ragalal yàlla te nga ñaan yàlla mu may la tuub balaa dee di ñëw leen bu ñu waxee ngeen jël seen làmmiñ ñu rëy yi naan dangeen di waxal diine te waxul leen diine seen bopp rek ngeen di waxal seen bopp rek ngeen di waxal te yéen ñooñu di wax dinañ ñëw ci yéen kenn ku nekk ci yéen yow imaam jéen yow imaam jéen laa wax xam nga jàkk rue Marsa engrais ren si coow li fa am ñun xam nañ li fa xew yépp li amoon centre commercial bu grande mosquée xam nañ li fa am da ngeen di jéem a lijjanti loolu ay cinquante association de imams ku ci nekk bëgg a jiite li may war a lijjanti mooy loolu waaye jóg naan da ngeen di ñaanal intervention imam Kanté imam Kanté moo leen yónni leen ñaanal leen ko intervention yónniwu leen tey yónniwu leen ëllëg te li mu waxoon moom la gën a waxaat nee na coon euh, kii di waali Ballago Seck dafay dimbali góor jigéen ñi lu mu defee woon Angleterre fa lañ ko invité fa lañ ko joxee t-shirt yi waaye heureusement ba am na ñoo xam ne ñi ngi en ngir lan li fi des ci ay jikko yu rafet ñu sàmm ko Thione Seck ragalal yàlla nga ñaan yàlla mu may tuub balaa dee di ñëw xaalisu góor jigéen dafa xaram boo ko doon lekk fas yéene koo bàyyi ndax lu xaram la boo ko joxee sa njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na safara moo yey ci njaboot goo xam ne li ñu koy dundalee dafa xaraam yow ñu ngi naan musique bi xaalis bi ci génn xaraam na wala xaraamul lépp ci boroom xam-xam yi dafa xaraam nga bëgg ci doole alal góor jigéen xanaa da bëgg suuxat sa jëmm jooju ngir safara li ma lay ñaan mooy nga tuub sa instriment yooyu nga damm ko sa penc moomu nga wëlbati ko soppi ko jàkk nga soppi ko jàkk ne jàkk sa doom wax moom mu tuub balaa dee di ñëw xale la te yaa ngi koy sacrifié bu fekkoon ne judduwul fekk la ngay woy du woy bu fekkoon judduwul fekk lay instrument du yomb ngir mu nekk woykat te nit dafa war a jubal doomam ci lu baax xiir ko ci lu baax bëri na ay woykat yoo xam ne du ñu ñaan yàlla mukk seen doom nekk musicien am na ay caga yoo xam ne ñaanuñu yàlla seen doom nekk caga am na góor jigéen yoo xam ne ñaanuñu yàlla seen doom nekk góor jigéen ndax xam nañ ne système bi système bi moo leen emprisonné kon di di wax ne tuub jot na Thione Seck ragalal yàlla yàgg sa njaboot wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu